leen wàcc seen wàccuwaay bu baax man la bëgg bàyyi bañkat ah, di xeex ngir Sénégal ah, di xeex yàgg a xeex ngir dama ñëw nag pour euh, def benn live bu ndaw di di ziare Sénégalais yëpp def benn live bu ndaw rek pour am lu ma leeral pour ñu bëri bàyyi ci xet waaw fii nag la lépp di leeree waaw ngeen continuer ñuy wax ndax fii la lépp di leere mu waa temps yëpp gis ngeen réseaux sociaux yi partout waa gars yi may attaqué di ma saaga di ma sosal di ma taqal di ma duumaal di ma waxal lu nekk <laughs> damay ree rek damay ree ba pare sant yàlla dolli ca la ma santoon yàlla ndax duumaal yi ñu may defal nii ak taqal yi ñu may defal ak saaga yi ñu may defal ci laa nekkoon sama gars yi ci laa nekkoon méttiwul ma xam nga lan moo tax méttiwu ma ah, damay sant yàlla ci ci ci ndekete man ci ab bàkkaar laa loon dox ndeketi man ci lu salte laa nekkoon ndeketi man ci lu bon laa nekkoon di di saaga ay nit di tuumal ay nit di yàq ay deru nit ngir Pastef di yàq ay deru nit ngir Ousmane Sonko waaye tey jii gën naa dëggal ne dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg non ndeke ku yeboo moytu parti bii di Pastef ku yeboo moytu ñii ñiy tuddee patriote te duñ ay patriote ku yeboo moytundiku gars yi nekk leen ay borom xel ngeen xalaat tuumaal nañ ma lu ne fi mu ne nii tuumal nañ ma lu ne taqal nañ ma lépp loo xam ne war mais ci laa nekkoon loolu laa loon def gis nga lii lii ñi may def nii maanaam lii ñi may tuumal nii di ma ko taqal nii man noonu laa ci àndee woon ak ñoom di ko tuumaal ay nit di ko takkal ay nit waaye yàlla leeral na sama xel leeral sama bët ba ma génn ci ñi ma koy def ma gën dëggal ne kon man ci lii laa nekkoon te xoolal li ñu may tuumaal yëpp dara nekku ci dëgg barke alxuraani karim dégg naa ñu ne i sàll jox na ko cinq millions dégg naa ñu ne xaw ma dañ koo futti ci ay jigéen dégg naa ñu amul dégg naa ñu ne waaw ñaanoon na diw xaalis maanaam lépp loo xalaat ci xeetu tuuma teg nañ ko ci sama kaw lii mooy passif saaga ndey menace de mor yee fitna taqal la tuumaal la sosal la lii mooy association de passifs lii moo ko tax a jóg parce que ci laa nekkoon moom laa loon def comme ñoom ni ñu koy defee nii noonu laa ko loon defee dem leen sama vidéo yu passé da ngeen gis ñoom ni ñuy def nii moom laa loon def waaye nag dootuma saaga ndax yàlla génne na ma ci dootuma wax nit lu ñaaw ndax yàlla génne na ma ci li des si sama dund incha allah ci kàttanu yàlla dara dootuma jaralati may taxaw bi saaga nit wala may wax nit loo xam ne waruma ko wax ngir jëmm benn intérêt benn personne boo xam ne pexeem su sottee senegal day tàkk damay sant yàlla ci loolu seen saaga yi naqadiwu ma seen tuumaal yi naqadiwu ma xam nga man lan moo ma naqadi mooy man tuumaal yi ma laan tuumaal gor ñi saaga ñi ma laan gor ñi man loolu mooy li ma naqari te lan moo taxoon ma ko doon def dama nekkoon ci benn parti boo xam ne parti rancunier la ñi ko sos seen idée ak seen philosophie bés bu sottee ci Sénégal ku ci nekk da nga gàddu say dàll daw lu leer laa leen wax dama koy wax di ko répété di ko répétaat ñooñu ñoo taxoon ma nekk rancunier parce que bëgg bàyyi koo xam bu njëkk avant muy dugg ci Pastef ak ba mu duggee ci Pastef nu mu changé nekk saagakat nekk rancunier nekk koo xam ne nii amul leen mais xool leen ñi nekk Pastef ñëpp di def live ngeen xool li ñuy wax jëmale ko ci kilifa diine yi li ñuy wax jëmale ko ci gor ñi li ñuy wax jëmale ko ci bépp doomu aadama boo xam ne nii tey jii nii mosoo xalaat ci sa dund na wax ju ñaaw ji dañ ko teg sa kaw Pastef rek nga koy gisee parce que association buy formé ay nit yu mel noonu lañu man ci laa bokkoon ñoo ma formé woon ci loolu laa nekkoon mais génn naa ci rocceeku naa ci maa ngi sant yàlla ci loolu saagal leen ma fii ba ginnaaw suba saagal leen ma fii ba déwén jéeg du ma fayu du ma leen tontu parce que dootuma saaga dootuma saaga dootuma saaga dootuma xool góor di ko wax lu ñaaw léegi li fi may dëgg sama tànk mooy xeexal sama réew ci façon boo xam ne moo gën a rafet gën a am teggin gën a am yar gën a nekk façon bu noobul ndeke xeexal sa réew dara gënu ko noobul ci àdduna ndekete xeexal sa réew ndekete amul lenn lu ko gën a noobul ci àdduna xeexal sa dëkk lu noobul la wax ju noobul nga war a génne sa gémmiñ jëf ju noobul acte bu noobul nga war a def kun damay sant yàlla damay sant yàlla ci loolu noonu kun saaga yi mettiwu ma mbir mi mettiwu ma Pastef nag danañ ko dénoncer parce que bokk nañ ci ñu ko xeex ba taxaw waaye xamuñu woon la nekkoon ca biir ba ma demee ba gis la nekk ci biir ci laa reculer dellu ginnaaw fas yéene taxaw pour dénoncer li nekk ci biir sénégalais bi ma gëm mën nga génn sénégalais bu ma gëmul nag mën nga continuer nekk ca biir parce que olof Njaay nee na daw ca ba ngay am ay tànk man daw naa ci ba may am ay tànk man bëgg baay bañkat daw naa ca ba may am ay tànk te dinaa continuer di leeral parce que yor naa ay bagages yu bëri pour muy leer da ngeen foog bëgg bàyyi dafa génn nii rek di wax ay wax yoo xam ne sans preuve ay wax yoo xam ne dañ koo jox xaalis yéen xamu leen li xew barke alxuraani karim bokk ci coow li xam li xewoo ko gën bokk ci coow li xam li xewoo ko gën gis ngeen manifestation yi paase nii manifestation yi nga xam ne moo fi mujj jàll nii danañ ci indi lu bari loo xam ne danañ ko teg ay audio par audio danaa ci def ay layf teg audio par audio pour yéen senegal yi ngeen déglu seen bopp parce que Tunguanu du teew ngeen ñi netaal li may woo ci nit kenn xamul nu mu toll ñëpp mënu ma leen décorosé ñi may envoyé vocal ci àdduna kenn xamul ni mu jamono ji mais ñëpp mënu ma leen tontu mais topp leen laay yi lépp dana leer te dana leeree fii ci laay yi may def topp leen laay yi lépp dana leeree ci live yi ñii ay yekkatu fitna lañ. ñii taalkatu réew lañ ñii li ñuy pexe bés bu pexe la xew Nigéria xew Mali xew ca yeneen dëkk yi nga xam ne ñëpp ngi taxaw na leen saan looloo nar am Sénégal ndax suñ peree ci seen seen manipulation yi ba pere barke alxuraani karim kaawoo la ñuy yóbbu Sénégal.